ginnaaw amagul lu koy faat ñu faagaru tokkër ga yaru Alcantara Sarr général national du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation national du Sénégal euh, ñaari mbir lañu ñu bëggoon partager ak euh, sunu concitoyens yi benn mbir mi mooy ci jamono guerre la ñu nekk bu ñu nekkee ci guerre ñun ñëpp ay soldats lañ euh, mbir mi doy na waar nguur gi jël na ay matuwaayam ñun ñëpp nañ taxaw taxawaayu soldat mooy jàppale nguur gi jàppale sunu bopp ci arrêté progression pandémie bi corona bi fexe ba corona bi génn ci réew mi beneen mbir mi moom mooy ñi ngi sant di gërëm personnel de santé bi médecins yi docteurs yi ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di prévenir di faj di toppatoo ñi nga xam ne corona bi jot na leen laal di woo nguur gi pour mu yokk seeni jumtuwaay yokk seeni matuwaay pour feebar bi bañ leen laal ndax loolu buñ ko defee dinañ mucc ci pandémie bi beneen mbir mi moom mooy appel la bu ñuy lancer parents d'élèves yi toute la communauté éducative écoles yi tëj nañ université yi tëj nañ ndax feebar bi am na loo xam ne dafa nekk warugal ci ñun mooy fexe ba xale yi continuer jàng ci kër yi ñu ngi ñaan enseignants yi ñaan parents yi ñaan communauté bi yëpp ñu jàpp ci loolu ndax loolu buñ ko defee dinañu fexe ba sunu réew génn ci jafe-jafe yi ñu nekk ah, te yàq yi nga xam ne moom la feebar bi di yàq du demee noonu. stop Covid 19 je reste chez moi et j'apprends à la maison.